salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu dalalaat fii kii di fu Aidara nekk responsable politique euh, foofu ci partie bi di PASTEF mu milité Biscuiterie yi nekk euh, représentant personnel lu hôpital Abass Ndao ci conseil d'administration bi nekk en même temps syndicaliste bu ñu ràññee ci milieu bi. muy militer particulièrement wala muy seen syndiqué particulièrement foofu ci ànd gësam Seye Dara ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal am mbégte dara laat la fii ci senego.com. asubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, maa leen di nuyu euh, di nuyu internet yëpp di nuyu képp nga xam ne mu ngi safo Sénégo di nuyu waa Sénégal. d'accord man dama doon xaar nga sol vert wala rouge bordeaux. <laughs> non Demba Demba sol naa Demba sol waroon invité parce que Demba sol naa vert di di <laughs> teertu suñu maire Barthélémy Diaz. Eh. non soo ma invité woon boobu moom di nga gis vert quoi. <laughs> parce que sa couleur bi dafa xaw a jege couleur wu ah. ah mu xaw a tane euh, nga nekk acteur de la santé aussi ah nekk hôpitalu. Abass ndaw euh, mu nekk hôpital boo xam ne quand euh, kenn mënul tudd hôpitalu Sénégal te doo ko tudd euh, yàlla def na ne yéen bari leen coow yu bëri ci biir Ndakaaru ndax la demee administration bi moo jaar yoon wala personal bi moo am benn état daam bi wala hôpital Abass Ndao moom daal moo amul benn problème c'est Cheikh Abass Ndao xam nga président président du au comité dialogue social mm. Innocence Samba Ndiaye xam nga lu ñuy wooye mm. enfant terrible de la de la santé. ah kon yéen a gën ñun Abass ndaw moom coow daf ñu topp quoi <laughs> mais depuis presque un an presque. Mm-hmm. yëngatuwuñu sur le plan interne. waaye excusez mm-hmm. parce que dañ gis ni vraiment euh, non seulement suñu problème yi bëri na suñu coow bëri na ba ñu xaw ñu caricaturer yàlla def ñu indi ki nga xam ne ñu nag moom ñoo doon xeexandoo euh, ñu nommé ko directeur. te mu bokkoon su ak ñun syndicat di xeex ak ñun ñu ne ah puisque suñu ñooñ lañ lañ nommé léegi nañ teg armes xool bàyyi mu doxal ñu xool. Hmm. ndax dinañ gis changement moo waral tekk tekkaaral bi. ok waaw d' accord te moom muy milité tamit ci beneen parti. waaw moom muy muy si Macky Sall. Ah, est ce que militantisme yàqul euh, gestion hôpitaux yi tey wala structure administrative yi déjà. waaw pour wax la dëgg rek euh, militantisme yaakaar naa hôpitaux yëpp la laal. Hmm. waaw pour ne pas dire yëpp la laal. politique daal on dirait que yàq na dëkk bi quoi. Mhm. dugg na fu nekk parce que feeñ na fu nekk dans l' administration dans les entreprises dans les hôpitaux hôpitaux boo dem am na seen ngalaj yi nga xam ne. Mhm. Euh, sur le plan politique moo ko indi te vraiment mu ngi sooxee mbir yi. d' accord donc euh, ça c' est général quoi. je pense général waaw. Euh, déjà mhm. nga nekk. ministère yi aussi boo xoolee. même chose la partout partout ci administration bi. looloo waral sax d' problème yi nga xam ne. Euh, euh, ñoo koy dund sur le sur le plan politique parce que gis mm. nañu ay affaires yoo xam ne di fuyute. Mm-hmm. bu doon bu doon mbirum politique. kon kenn du ko gis sur la place publique. Euh, mu doon loo xam ne lu garaaw la je pense que mm-hmm. nit ñi war nañu mën a def. par entre seen métier ak seen militantisme politique nga ne bi ngay wut tamit pour mën a nekk responsable représenter le personnel de l'hôpital Abass Ndao mm-hmm. je pense que c'était pas facile parce que élection la woon comment est-ce bon foofu di nga ma may ma sant gërëm waa Abass Ndao mm-hmm. bi ma sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ma sant gërëm waa Abass Ndao parce que defal nañ ma li nga xam ne euh, mun naa ne guléet si si Sénégal naa les hôpitaux mm-hmm. maanaam représentant du personnel au conseil d'administration bi nga xam ne euh, mun naa ne candidat indépendant la demee def naa euh, tey am na benn cadre bi nga xam ne Abass Ndao la nekk souligné na ma loolu mu ne ma loolu man jaaxal na ma say mbir parce que euh, pour la première fois ma gis ki nga xam ne nekk na représentant du personnel te jaarul ci syndicat hmm. maanaam syndicat placé wu ko quoi. waaw man comme candidat indépendant rek. parti politique yóbbaale yóbbu ko. je comprends et face à une coalition bi nga xam ne euh, une forte coalition franchement. Hmm. waaw li nga xam ne ancien euh, ancienne ancienne représentante du personnel. Hmm. si coalition moo leen gëmboon. ok te coalition boobu waa pouvoir bi la woon nana <laughs> non non du waa pouvoir bi parce que <laughs> politique bi feeñu fa. Uh-huh. franchement loolu moom. <laughs> waaw politique bi feeñu fa franchement. d'accord mais yàlla def euh, c'est loolu aussi xam nga nit ñi aussi wala personnel bi euh, na nga dugg vraiment di leen wax dëgg. Uh-huh. saa su ne. Uh-huh. suñu amee sa confiance vraiment dofuñu. xam nañ fu dëgg bi féetee ak yooyu. donc loolu moom ñoom tamit seen intérêt la ñuy xool xam nañ ku nga xam ne si ñoom la nekkal. xam na ñoo xam ne aussi dañuy nekkal seen biir wala dañuy def double jeu. Mhm. franchement man yaakaar naa ne loolu jàppale na ma lool lool lool sax. d'accord lan mooy rôle représentant personnel ci conseil d'administration. waaw représentant personnel bi euh, lu ma la ko mën a waxee mooy maanaam day nekk comme man su ma gis-gis comme un député à l'Assemblée nationale. ok euh, ñu bëri dañuy jaawat jaawatle représentant du personnel ak délégué syndical. Mhm. Mhm. mais euh, dafa am différence bu rëy parce que délégué syndical. moom normalement moo war a nekk wala secrétaire général de syndicat moo war a nekk ki nga xam ne day nekk entre interface entre le personnel et la direction mm-hmm. maanaam lu nga xam ne personnel bi da koy jooytu moom moo ko war a gérer mais représentant du personnel moom xam nga conseil d'administration mooy mooy maanaam organe bi nga xam ne mooy euh, politique bi nga xam ne mooy moom la direction directeur di kii moom ñoo koy valider mm-hmm. lépp lu nga xam ne directeur da koy def conseil d'administration bi foog mu mu saytu ko waaw mu amande jox ay directive am directive am nag foofu la directeur di kii di boo xoolee budget bi hmm. ñoom ñoo koy valider hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc am na lu bëri li nga xam ne euh, personnel bi euh, conseil de d'administration moo koy jagleel personnel bi directeur dool ko appliqué hmm. donc euh, loolu la quoi léegi ñun. suñu rôle salaire yeeg ak problème salaire moom en général bon c' est général. Mm-hmm. donc euh, foofu moom euh, am na gris salariale ba nga xam ne c' est comment au par exemple aux hôpitaux par exemple fonctionnaires yi am nañ seen gris salariale ñun ñi nga xam ne hôpital moo ñu jël. Mm-hmm. ñun grille salariale bu ville de Dakar. Mm-hmm. pratiquement loolu la ñuy appliqué wu benn sur le plan salarial moom amul problème. y' mais avantage yi avantage yi. ak euh, par exemple yeneen yeneen yeneen primes yi foofu la conseil de administration di. di intervenir di intervenir di intervenir léegi un représentant syndical mu tudd du personnel aussi. Euh, il est au-delà des des différents syndicats qui qui qui interviennent à l'hôpital maanaam moom farul fenn quoi personnel bi rek lay représenté quel que soit syndicat bu pers bu benn employé bokk effectivement moom ñëpp lay représenté du du même le directeur c'est le représentant du personnel qui qui le représente au conseil d'administration personnel la ci personnel la <laughs> te moom si conseil moom bokkul si conseil d'administration. d'accord moom secrétaire la fa. Mm, mm. donc euh, conseil d'administration boo xoolee ñaar kese ñoo bokk si hôpital te bokk fa. Mm. c'est le ma mooy président de de la commission médicale d'établissement. loolu médecin yi la. ñoo koy loolu tamit dañ koy fal mais médecin yi kese la concerné. waaw ak le représentant personnel bi nga xam ne loolu médecin au planton lépp lay. lépp lay kii tout le monde waaw. voilà hmm. donc euh, loolu la. d'accord mais lii maanaam c'est le poste pratiquement bi gën a kawe. waaw boo xoolee ci représentation ci biir hôpital. bien bien sûr. ok bien sûr boo xoolee am na privilège quand même. Euh, non xanaa xanaa ay am na am na prime bi nga xam ne mooy représentant du personnel ak aussi bu bu conseil amee am na hmm. jeton de présence bi nga xam ne membre conseil yëpp dañ koy am d'accord voilà d' mais c' pas un rôle facile quand non pas du tout. parce que man a mën a dajale ñëpp mën a comprendre doléance su nit ñi tamit xanaa war nga ko mën a recueillir pour que man a mën ko reporter ci kaw. effectivement ñun bu ñuy bu ñu doon campagne. Mhm. lu ñu leen waxoon mooy. su ñuy dem conseil d' administration nañ ñëw taataan seen xalaat. Mhm. balaa ñuy dem maanaam seen bébét li nga xam ne conseil d' administration moo ko war a régler. Mhm. suñu demee ba pare leen di rendre compte. te alhamdulilah rabbil alamin boobu ba léegi ñu ngi respecté lu nga xam ne loolu lañ waxanteel ak ñoom man damay def conseil d'administration bu amee tey ëllëg sax du ma xaar sax PV bi ñu validé ko yooyu parce que kii dama ne kii jël PV dafa teew comme loolu nga teewee donc warul waroo xaar ba PV génn pour mën a rendre compte man je dis que pour couper court aux rumeurs lii lañ fa wax lii lañ fa wax man suñu defee tey conseil d'administration suba damay convoqué AG donc conseil d'administration suñu suñu convoqué rek man automatiquement man tamit damay informer directeur convoqué AG le lendemain. Mm-hmm. voilà ok. man loolu laay ah, defee comme ça ma rendre leen compte mu mu kii quoi voilà. très rapidement. voilà euh, euh, déjà ci hôpital bi tamit euh, gis nañ ne le maire Barthélémy ñëwoon na inauguré fa démb. lii di pose première pierre waaw. voilà post voilà pôle enfant. mu nekkoon ancien mooy bon on va étendre un peu la néonatologie. Mm-hmm. moom la ñu transformé en en pôle mère et enfant. waaw maanaam pôle maire enfant c'est la maternité. Mm-hmm. et la néonatologie. ok et un peu la pédiatrie aussi. d'accord voilà d'accord léegi mm-hmm. boobu ban importance lay am ci biir doxinu hôpital bi. waaw foofu tamit di nga ma may ma ma gërëm sant suñu maire nga le maire de Dakar et d'office le PCA du centre hospitalier Abass ndaw d'accord Abass Ndao kese moo am loolu. d'accord donc maire bi mooy nekk président du conseil d'administration. c'est vrai mun na ko délégué am vice pré vice président bu mu bu mu désigné. Mhm. muy ñëw di ko représenté. mais conseil yëpp moo ko war a kii te mooy mooy def euh, convocation ak yëpp. Mhm. donc dem ba ñëw na fa ñu ngi koy sant di ko gërëm. ñëw def pose première pierre bi nga xam ne euh, projet la bi nga xam ne euh, suñu professeur moo Guèye bi nga xam ne moo yore new néonate bi. Mhm. moo ko moo ko conceptualiser ak ay ñooñam cest ay professeurs yi fa nekkoon ak yeneen kii. Euh, moo ñoo def projet bi. pour euh, Abass Ndao Abass Ndao ñëpp xam nañ ne seen maternité est l'une des premières au Sénégal. Euh, mille cinq cent accouchements la ñuy def par an. donc je que les gens disent que même c'est la première maternité. donc d'office aussi néonatologie aussi même chose la parce que référence yi yëpp pratiquement Abass Ndao la la ñuy mm. dem mm. avec la fermeture de la maternité de Dantec bi nga xam ne yàggoon na yàggoon na tëj sage femme yi fa nekkoon yëpp en général ñoom ñu bëri sax Abass Ndao lañ leen affecté woon mm. donc euh, loolu tax na bu ñu defee bu ñu defee projet boobu vraiment présenté ko le maire Barthélémy Dias vraiment kontaan na ci parce que moom campagne am yëpp euh, am na pàcc bu nga xam ne moom la tuddee euh, Dakar Euh, ville de santé. Mhm. te Abass Ndao mooy hôpital benn mennum hôpital bi nga xam ne moo dese ville de Dakar. Mhm. am na ay centre de santé am na ay. ay poste de santé mhm. mais Abass Ndao mooy hôpital de niveau trois bi nga xam ne. moo dese ville de Dakar di ko gérer. donc euh, donc programme am vraiment jox na si pàcc bu mag a mag. si pour Abass Ndao commencé na di ko te loolu la commencé déroulé. Mm-hmm. te vraiment nekk na mbetteel si ñun. Mm-hmm. parce que ah, ki ñuy fal neuf mois je la la toll. Mm-hmm. xam nga dix. nga ñëw di pose première pierre bi nga xam ne bâtiment bi nga xam ne vraiment euh, yànji na def naa yónnee naa waaw non seulement mais euh, yaatu na euh, mun na dem ba cinquante lits sans compter maternité ak ak yeneen yeneen kii yi nga xam ne parce que maternité aussi. fi mu war a nekk. Mhm. foofu la actuellement bloc bi nekk. donc dañuy déménager bloc bi dem boole ko ak Chirige ak yooyu te loolu tamit Barthélemy maire le maire Barthélemy Diaz jël na engagement pour tabaxal ñu aussi batiment boobu nga xam ne day regrouper chirurgie euh, cardiologie ak bloc bi. Mhm. parce que bloc bi. Mhm. pôle mère enfant day day day day tax ñu délocaliser bloc bi. te loolu aussi jël na ko en charge quoi franchement loolu moom ñu koy gis ñu ko siy sant di ko gërëm. ah Barth guerrier la moom. waaw vraiment euh, yàlla continuer nii daal. te bettuñu daal parce que on l'a suivi. Mm-hmm. Euh, kay suivre nañ campagne am on a bâti campagne avec lui xam nañu message lu mu doon véhiculer te man à chaque fois dama doon rendre compte euh, agent yi. Mm-hmm. leen wax de ah Barth de lu mu mbébét si Abass Ndao de neex na. vraiment nañ ko jàppale moo gagné te yàlla may nañ loolu te moom tamit. mu ngi si voie boobu voilà. mu ngi koy doxee voilà d' accord ngeen nekk en grève ah ànd gësëm foofu nga bokk nga en même temps yow euh, xam nañ ne euh, syndicaliste nga. Mhm. Euh, grève bi quatre vingt combien d' heures soixante. quatre waaw de grève. lu waral grève bi exactement. waa lu waral grève bi def naa umpul kenn xam nga ñun personnel santé man dama gis ni état daf ñu négliger lool lool lool. te vraiment. Euh, ak salaire yi ñu yokk déjà hôpitaux yi hôpitaux yi war ñu leen négliger. Mm-hmm. de un Cheikh Tidiane hôpitaux euh, personnel sanitaire seen salaire bi dafa tuuti. Mm-hmm. dafa tuuti lool lool sax da ngay gis par exemple sage femme. ñu ne bac plus trois mënul sax am deux cent mille à ses débuts bac plus trois les techniciens supérieurs. dafa la fanaan. dafa waaw fanaan. amoo samedi amoo dimanche. Mm-hmm. amoo tabaski amoo korité amoo màggal amoo dara. amoo 31 amoo vingt 24. donc bu garde bi tombee ci yow foog nga ñëw garde quel que soit chrétien nga wala musulman nga. mu tombee sa mu tombee sa fête. mais foog ma ñëw. Mm-hmm. parce que ay malade lañ amal affaire. te la vie humaine et sacrée. Mm-hmm. kenn waru ko fooyee. moo tax ñu boole na ma benn problème rek ñëpp fàtte sacrifice yooyu ngeen di ko mais soo gisee sax soo gisee suñu grève yi du ñu faale. Mm-hmm. parce que ñun on fait pas une grève comme les comme les enseignants ñun duñ def grève comme les enseignants. waaw ñun soo gré soo soo nekkee en grève il faut que nga ñëw liggéey parce que il faut un service minimum. ah pour les cas urgents il faut aussi prendre les urgences. moo tax en général grève bi duñ ko sentir lool lool lool. parce que état bi muy muy tànkamlu. xam na xam na da ngeen di liggéey mais boo bu fekkee enseignants yi dañuy teg cré <laughs> amul service minimum amul dara. moo tax ñoom bu ñu dooree rek. gars yi dañuy jóg. mais ñun ah puisque da ngay da ngay dawale yermande boo defulee ñu la mbaay ñaaw. te nit moom bu faatoo moom jeex na. donc. Tandis que une année scolaire, une année scolaire peut se rattraper et cetera et cetera. la santé ne se rattrape pas, voilà mais li waral grève bi mooy état bi euh, bu ñu defee bu ñu defee négociation yi am na lu nga xam ne état bi jël na si engagement. Mhm. mooy maanaam yokk prime de risque ñëpp xam nañu hôpitaux yi mu nekk administration ku mu nekk ñiy faj risque la. Mhm. risque la nga jàpp nga jànkonteel yeneen feebar comme risque la nga jël feebar yóbbu ko sa kër. Mhm. prime de risque cinquante mille kese la la woon état bi ñëw yokk ci vingt cinq mille nee na deux mille vingt trois dina yokk beneen vingt cinq mille prime de logement. zéro franc. nii nii nii. amuñu prime de logement. ah waaw léegi engagement bu mu jël mooy prime de logement def ko à cinquante mille. ñu defee ne pour personnel bi yëpp la ñu ne non administration yéen bokkoo leen ci ñu ne léegi ñi nga xam ne ay paramédicaux lañ. Mm-hmm. yéen ñi nga xam ne yéen a am diplôme d'état. te di def benn même liggéey ak ñoo xam ne amuñu diplôme d'état yéen am prime de logement ñi amul diplôme d'état du ñu am prime de logement. Hmm. est-ce que loolu xel mun na ko nangu. alors que nit ñi ñoo bokk même liggéey bi. même liggéey. waaw di même liggéey cadre ñooy xëyandoo ñooy wàccandoo il font le même travail. na waar. mun na am sax ñii gën xarañ hmm, compétence moom. waaw. <laughs> parce que loolu compétence yàlla ku nekk compétence wala waaw loxo bi loxo bi eh, neex. barke ya barke am barke. Mhm. mais yàlla ku nekk la koy lu ko neex la koy la koy jox. mais lu tax yow nga ne kii day am lii kee du am te. ils ont le même statut pratiquement. diplôme rek moo leen kii ñii am nañ chance am diplôme d'état ñii amuñu diplôme d'état. léegi nga ne ñi nga xam ne ay travailleurs communaux lañ ma par exemple mairie de am na ay agents yi nga xam ne daf leen affecté foofu. Mhm. am nañ ay diplôme d'état comme ñee hmm. am nañ ñi nga xam ne amuñu diplôme d'état mais ñooñu kenn amu ci te am nañ diplôme amuñu sax sax dërëm ñoom. maanaam état ay employé boppam la gérer. la gérer bàyyi ñeneen ñi. bàyyi waa ville de Dakar. waaw alors que nekk. waaw di fa liggéey comme ñëpp. Hmm. non gars yi ne non déet ñun négocier wuñu lii dañuy négocier pour tout le monde donc ñëpp ay am lii mooy indi problème lii mooy indi problème bi donc. signé woon nañ ba pare mais gars yi demaat nañ grève parce que ñu seetaan ñii am ñii bañ am. Mm-hmm. waaw te ngeen solidarité de corps da ngeen ko c'est ça c'est parce que mm-hmm. mais ñoom signé wuñ loolu. Mm-hmm. lu ñuy signé mooy ñëpp am ñëpp tolloo. mais tamit ngeen jël quatre jours di ko grève quand même. non commencé ñu quatre jours de un dañuy dem préavis de grève. ñu dem ba trente jours yi mat woowuñu leen bu trente jours yi matee woowuñu leen mais ils ont droit d'aller en grève. mu loolu lañ def dem engrais dem commencé 72 heures kenn faalo ñaata soixante-douze heures lañ def. trois trois fois <laughs> waaw yow xam nga am nga cas. am naa ci cas mu ah, na la sax. am nga feneen fuñ fuñ ko jëlee. waaw ma xam fa keneen. waaw suturaal ma xam mais yow yow sa bi boobu du grève ànd gësam <laughs> yow grève technicien supérieur yi nga tombé ah, ah, na ma ne dinañ ma mën a lijjanti <laughs> <laughs> hôpital warul grève war ngeen wut beneen moyen quand même parce que hôpital moom hôpital warul grève état am na responsabilité quand même ñu taxaw leen ci mbirum traitement parce que un médecin aussi ou sage-femme war na mën a am xel bu dal pour que mu mën a def liggéeyam mën a jaar yoon non man euh, uti beneen moyen moom man mun ma ko mun ma ko dégg. Hmm. mais defe naa état moo war a taxaw fu mu war a taxaw. non moo war a góorgóorlu ci yéen. voilà c'est ça loolu mooy dëgg dañoo war a góorgóorlu ci mbirum paj. effectivement loolu parce que santé amul président Macky Sall tey bu feebaroon même bu demoon Abu Dhabi. waaw ci hôpital lay dugg. effectivement te hôpital Abu médecin wu Abu Dhabi. wala mhm. Dubaï wala feneen ëppul valeur médecin yi nekk Sénégal parce que même liggéey bi la ñuy def. bien kon war nañu mën a valoriser autant que war nañu mën a valoriser le secteur de la santé la sécurité. Mhm. noonu la ñu war a mën a ci yeneen corps yëpp pour que quand même nit ñi mën a def liggéey. seen liggéey du mu waree. Euh, léegi grève bi moom da ngeen da ngeen di da ngeen di góorgóorluwaat defaat ko. bu non en tout cas suñu wowulee suñu wowulee pour discuter ak ñun vraiment dañuy labalewaat de. fu ñu toll nii moom. amul arrêt ah, non amul arrêt. vraiment comme on le dit on a déterré la hache de guerre xam ngeen ne. en 2018 on est on est allé jusqu'à 18 plans d'action. 18 plans d'action. en 2018 xam nga ma Sall moom tamit moom day day gëmm rek di seetaan. depuis 2018 fu mu toll nii waaw. wala en 2022 nii. non 2018 dañoo dañoo gré dañoo def grève dem ba 18 plan d'action mu wooñu hmm. mu wooñu en janvier 2019 waxtaan ak ñun ne nañ bàyyi il va nous recevoir après les élections en avril. Hmm. ba léegi kii boobu amul audience boobu amul. waaw c'est pas normal. ba léegi audience boobu amul. Hmm. ba gars yi jëlaat dem gré commencé waat mouvement yi ba ñu dem toog. négocier ba. parce que baa doole yi gën a sonn état war na xam ne quand même. ah que hôpitaux yi. Mhm. doole yi ñoo fay gën a def. effectivement effectivement. parce que patron bi borom doole bi mhm. ministre bi député bi. Mhm. ak yeneen corps d'état yi. ñoom bu ñu fajoo abaas la. non non ñun ñëpp xam nañ ko. waa bu ñu génnul ci dëkk tubaab yi ñoo ngi ci. clinique yi gën a cher ci Ndakaaru. kon war nañ mën a góorgóorlu. côté wala wala principal. wala principal nga ne principal sax ñu ngi ci mouvement. Ah, xam nga principal kenn xalaatu ko woon. vraiment tey naan armée bi moo fa nekk général mooy gérer ak yooyu mais principal gis nga leen. ça ne la santé problème boo musul dégg et principal loolu ngay dégg actuellement principal. Ah, xam nga loolu aussi war na war na war nañu tiital ko franchement. d' accord nga nekk acteur politique di milité biscuiterie yi. Mhm. Euh, bokk Pastef. Mhm. tey <laughs> yàlla def na ne politique bu Sénégal. Euh, kenn mënu ci génne Pastef parce que ah. nekk ngeen le premier parti après le parti au pouvoir en termes de macha allah puissance de représentativité mhm. ba seen leader bi c'est le numéro un des euh, de l'opposition sénégalaise ko mhm. bañal dem tamit par force foog nga nangu ko tey ah loolu la yàlla dogal mais mu nekk ci bis bi avec la justice sénégalaise mhm. euh, particulièrement le dossier Adji Sarr bi nga xam ne c'est une citoyenne sénégalaise qui a porté plainte à Ousmane Sonko responsable politique de Pastef Euh, récemment après les événements du mois de marche euh, ñu convoqué waat Ousmane Sonko pour une audition. Euh, mhm. mu dem naturellement comme ni mu ko waxee woon. Mhm. mu woote jàmm ne gars nañ toog seen kër nga respecté mhm. ko. parce que Sonko xam nañ na après tout au delà des militants qu'il la il a des talibés. <laughs> voilà ci nga ci ñooñu nga bokk. <laughs> déjà posture Sonko ci convocation bi nii yow en tant que militant au Pastef nekk responsable politique. ndax nga ko jàngatee. waaw xam nga posture bi euh, won na ñëpp ne Sonko nitu jàmm la. su ko bëggee. non président Sonko nitu jàmm la. su ko bëggee nekk xam nga aussi non nitu loolu kay ñu nangu ko bañ koo nangu nitu jàmm la. bëggee nekk xam nga aussi nit. Mm-hmm. suñ lay agressé di la agressé di la agressé bu yàggee nga fipp. Mm-hmm. lu ñuy wax muus boo koy kii bu bu sësee si mur bi moom day. sa kaw la donc moi je sa posture loolu laa ko comprendre quoi. mais nitu jàmm la. Mm-hmm. bu ñu ko bàyyoon mu mu mu duñ ko defee affaire yi nu mu waree. Mm-hmm. parce que de un affaire bi moom ñëpp xam nañ complot la moom. complot ñu nes la teg ko. dossier Adji Sarr. waaw bien sûr. Mm-hmm. dossier Adji Sarr complot la. complot la mën nañ ne au début euh, euh, bon président bi yéegu ko. mais après daf ko yëg mu jafandu si. Ah, loolu moom leer na ñëpp benn membre APR ngaati ngaati ngaati Thiam Ngoti Ngoti Diop. Ngoti Ngoti waaw. toog na fi nga toog nii mu waxaat la même chose. waaw nee na au le président n'était pas informé mais après. yëg na ah, ko man tam loolu laa jàpp. Mhm. parce que ña ñan ñoo si nekkoon ñoom Mamour Diallo la ñoom ah ak chauffeur am ñoom Gabi ñoom maître Dior Diagne. man moom maître Dior Diagne moom daf ma bett. Hmm, lool sax non xam xaw ma ko mais papam laa xam. papam xaadar la fervent taalibe la hmm. te ñun ay xaadar lañ xam nañ ñu doon jëflante ñëw na ba suñu dëkk ñun. waaw ñëw na ba suñu dëkk bu muy nekk euh, président euh, kiw xaadri ñëw na ba suñu dëkk suñu maam ñaanal ko ne ko demal incha allah ndam ngay am ma tas ak moom fu bëree bëree bëri man seen kër googu dem naa fa en face assemblée bi rond-point foofu dem naa fa. waaw. moo tax bu ma de am na publication bu ma bu nga xam ne jot naa jotoon naa ko ma ma ma partagé ko su ma benn frère su ma oncle Taalibouye Taalibouye Aydara mi nga xam ne APR la nekk moo ma ne yow li nga partagé nii xanaa xamoo ne lii kii doomu diw la ma dindi ko ma ne ko xaw ma ko woon ma dindi ko donc papam ñaan na ko yàlla yërëm ku baax macha allah ku baax la. man bu ma ko déggee si mbir yi ba dem na sax nee nañ di. mais moom dañ ko ci tudd rek tamit prouve que moom la wala ci complot bi la bokk moom ban dayoo la. mais message no ban dayoo ban problème la wax Ousmane Sonko non mu ngi ci mu ngi ci non yéeg nga yéeg nga waxam ak Gabi yaa bind plainte maa bind ma ba ñu dem si baro bi. waaw loolu xanaa yéeg na ko nee na bindu na ko ba porté na plainte. porté fu mu mujjee. ah mais peut-être moo bu baale. je a pas fu mu mujjee. bu jëm mais loolu dañuy war a wax fu mu mujjee. bu dee kala reconnaître na baalu na ko ah, ah déet ah waaw. puisque ñu entre avocat la kay. waaw diñante ko ba ba kii. waaw am nañ ko réglé seen biir à l'interne entre entre amul moom mu ngi ci moom. <laughs> mooy ci même su fekkee impliqué wul sax directement mais jëkkëram mooy mooy ministre de l' intérieur ah. te ministre de l' intérieur. gis nañu aussi muy ah. yàggul mu amee de. non mais buñ koy wax. mariage boobu yàggul xam naa mariage ban la xam naa fu ñu eh, organisé. gaa yi takku suuf la woon. takku suuf la woon. non non mariage <laughs> Antoine bu jot jot ak. Cheikh. Cheikh Sénégal lañ dëkk <laughs> Sénégal lañ dëkk ñun ñëpp dañuy dama dem ba siiw léegi ñu ñu ñu def lu nga xam ne moo kii ah, mais ah, ah, tamit ah. mooy jiitu affaire Adji mois de mars. mais bien sûr. Euh, <laughs> bien sûr ah man de bu ma koy dégg. waaw mais mën na nekk sax jabaram mais fekkee tàkkewul ci mbir sax du problème. Hmm. mais lu ñu feeñee si mbir bi moo tax c'est ce qui pose problème. Antoine lu ci yoonam. ci dossier wu plainte tamit moom it. ah du moom du magistrat du du du du bon il n'est pas reconnu même comme un militant de l'APR Antoine. waaw mais événement yi kii woon il a joué un grand rôle ah. mais en tant que bu fekkee bu demee ba ne ay force occulte moo fi nekk ak yow. force occulte vraiment c'est allé non non non. non non non amu fi woon. fi kay force benn force occulte lañ gis mooy nervi yi nga xam ne ñu doon tiite à bout portant. ah bon mais. bien sûr non nervi nervi bi. les films gis nga ko. ki taxaw Auchan yor arme dóor tal tal tal. kooku mais kooku kooku est-ce que bokkul ci nervi yi. mais waaw nekk ci pouvoir ba pare di def loolu. mais bien sûr mais mais yow. pour tuuma l'opposition. non ma mouvement infiltré yi Cheikh Tidiane du ma la du la jàngal dara mais mouvement yi dégénéré yëpp mais ñoo dañuy infiltrer ñëw saboter. mais lool la Antoine man dem man dem naa dem naa ay kii yu bëri mais. day am ñu nga xam ne dañu nekk si ful bi naan leen nañ dem pale nañ dem pale. mais ñooñu non ñooñu ñooñu ce ne sont pas ñooñu dañoo ñëw dañ leen di yebal foofu pour ñu ñëw. defloo nit ñi lu nga xam ne day kii pour pour. mu am répression ñooñu la doon woowee force occulte. ah kon si ñoom la jógee de ñoom ñoo leen di yebal foofu. <laughs> Ah, mais ñoom ñoo leen di yebal foofu. c'est comme euh, dégg naa benn benn kii di def déclaration waa Pastef la nee na euh, mouvement yi amoon mu ne am na ku ñëw ak cocktail Molotov nee na pour nañ ko jël. dem xeex ak policiers yi. Hmm. bu ñu ko rabroué dafa jubal directement ci policiers yi donc policier la woon en civil. dafa ñëw pour pour pour tester leen xëy na wala euh, jàpp leen comme ay terroristes comme puisque lool moo xew léegi. Hmm. ay forces occultes ay terroristes ay de euh, sais pas euh, force spéciale ak yooyu lool léegi mooy mooy seen. mooy seen ah, liggéey léegi di tuumaal nit ñi rek leen tëj. waaw police amul intérêt def loolu te ñoom amuñu prison. seen ñun amul leen kii waa Macky amul prison. prison yaay fees dell. sa bi ko daan fees na. ay opposant rek ñoo fa nekk. opposant kese ñoo fa nekk. ñoom bu ñu ngi vadrouiller di te ñoom yëpp prison bi lañ war a nekk. ana ana ana ana ana ñi nga <laughs> ñu ngi vaquer à leur occupation Mamour Diallo mii normalement moom warul nekk ONAS. ah bon prison la war a nekk. lu mu nag lu mu ci wax. lan la ah mooy maanaam lu Sonko wax dëgg la. déet of of nag moo wax loolu. loolu la wax. ah. bien sûr. lu <laughs> Ousmane Sonko wax dëgg la. Sonko ah waaw bon d' accord wax na ko moom ñun de diggoon nañu dina génne papier yi dina wax numéro compte bancaire baak ba tey Sonko. dafa ne suñ ko convoqué tribunal. waaw da koy wone parce que non. yow mais loolu njëkk ko wax de. non dafa ne. man j'ai papier yi fii le moment venu dinaa ko génnee jox leen ko. waaw oh, le moment venu ba léegi ñëw après la wax ne waaw convoqué leen ma mu ne suñ ma suñ ma suñ ma convoqué dinaa génnee. Mm. preuve bi parce que tribunal la ko mën a génnee. Mm. su ko génnee dañ koy topp comme recel recel kii xam naa affaire Pape naa Pape Alé dinañ ci ñëw. ah pièce su génnee su génnee loolu dañ koy naan recel <laughs> kii administratif. papier administratif. waaw loolu lañ koy toppee. d' accord ñu ñëwaat si dossier. Adji Sarr bi euh, Sonko dem na finalement wuy ji na. le doyen des juges. Mm-hmm. toog nag moom. Mm-hmm. décider na wuyu. tontu mm-hmm. yenn questions yi. yeneen yi mu waat yàlla na du ci tontu. waaw parce que complot la. waaw est-ce que jàpp nga ne Sonko bi nga xam ne dañ ko woo pour mbir yi gën a leer am na droit pour yenn yi nga xam ne ay militants am na. ne yenn questions yi du ko tontu. Euh, Cheikh Tidiane. mbir yi leer na pour le respect qu'il a pour ses militants. mbir bi leer na pour ñi nga xam ne dañu bëgg mu leer. ah leer na ci seen bopp. non leer man moom leer na suma bopp bu yàgg. mais doyul. foog ñu dem non non xam nga xam nga ñoom euh, complot bi dañ ci jëfandu bëgg a bàyyi bëgguñu ko bàyyi te vraiment je crois que euh, ils doivent savoir raison garder ñu xam ne lii rëcc na leen ñu bàyyi balaa muy jëmale pays bi feneen. ñu ngi naan fii lu fi amoon du fi amaat xam nga bee passé dañ ko jiiñoon ne confinement ak yooyu loolu lañ ko jiiñ ak vie mais bu ñu fàtte ne bii actuellement nii vie chère bi baa ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen hmm. donc nañ def ndànk ndaw si porte na plainte ni dañ maa sakku démb si guddi nga dem gis gynécologue mu xool génne certificat médical ne kii heure yi passé nii kenn laalu ko loolu du jeexal wax mais seen saagakat boobu du am na ku fi ku ko fi yéeñ viol n'est-ce pas. tëj nañu ko. non tëj ñu ko ndax viol. waaw mais parce que médecin bi wax na ne viol amul dafa bi la ko wax du certificat médical. wala certificat médical ñaar la léegi bu Sonko ak bu bu bu bu bu kii. waaw mais ko ba léegi. non pour ñu mën a wax ne dama ne ne. lu tax kee certificat médical ne amul viol. mais atte nañu ko ñu gëm ko. non ko ndax viol dañ ko at. atte ah, pour coups et blessures parce que daf ko dóor. waaw mais am na kee waxul ne Sonko daf ma mais am na waaw am na atte. atte boo xam ne dafa déterminer ne viol amul mais coup et blessure la. dem na tribunal waaw non wax ma la man wax ma la yow yow tëj bi nga may wax. Hmm. tëj bi teg ñu ko ndax viol. parce que certificat médical génn na leer ne kii kenn sakku ko. Hmm. si sakku bu ñu bu ñuy wax quoi. Hmm. comprendre nga. ñu gëm ko. man gëm naa ne sakku ko parce que certificat médical leeral na ko hmm. mais lu tax du ñu le du ñu du ñu gëm ni en même temps que kii aj Sarr certificat médical nee na kenn sakku lu tax kenn du gëmul loolu. certificat médical bi ngay wax. benn la. certificat médical bi nga waxul ne viol amul. dafa ne tëddee amul. moom laa la wax mais kii tamit tëddee la. <laughs> non xam nga viol moom. lu ñu ko définiree mun na mun na bon. accouchement sax. Ah. te neexu ko. mun na nag viol. mais teddee bi laa wax. Mm-hmm. moo tax ma ne la viole si li ñu koy déggee ñun. Mm-hmm. certificat médical dafa wane ne Kaliphone teddeewul ndaw si. Mm-hmm. ñu gëm ko. bee tamit wane na ni Adji Sarr kenn teddeewu ko. mais lu tax nanguñu ko gëm. bi certificat médical bi ngay wax dafa ne. waaw. l'examen de ce jour. oui. ne retrouve pas de lésion vulvaire. waaw déchirure ancienne de l'hymen. la gis. waaw sur les onze heures passées. waaw onze heures yi ñu weesu. waaw mais dans le même document. Mm -hmm. que vous avez partagé. waaw. au paragraphe numéro quatre. waaw qui contient une seule ligne. waaw nee na des prélèvements ont été faits. Mm -hmm. en vue de test ADN. gynécologue bi moo ko bind. waaw léegi moom lan moo tax muy wax waxu ADN te Ousmane Sonko ñu ne da ngay def test ADN mu bañ. non xam nga. nee na prélèvement def nañ ko xam nga hmm. médecin bi. dañ ko réquisitionné. parce que muy dafa ne lésion am non non dafa nag. lésion am médecin bi dañ ko réquisitionné. ñan noo ko réquisitionné. procureur xanaa. waaw. suñ ko réquisitionné luñ ko laaj. loolu lay bind. loolu lay bind. waaw. suñ ko nee defal prélèvement day def. waaw parce que du def à l'encontre de luñ ko laaj. waaw parce que kii. moo tax mu def prélèvement ñoom ñoo ko sant moo tax. mais buñ ko bàyyoon nag xelam. du <laughs> ah, jéggi foofu parce que kii tamit dañ bi la bokk. mais bien sûr mais xam nga xam nga ADN. Mm-hmm. ADN. Mm-hmm. mais ku nga xam ne danga ko doon maase. Mm-hmm. day ñàkk. mën nga jëm ñàkkam def def loolu. waaw. mën nga jël ñàkkam def loolu. comme mën nga jël leneen ak leneen def loolu yóbbaale loolu ñu ñu ñu prélever ko. parce que prélèvement vaginal moom hôpitaux yi ñun xam nañ ko dañ koy def. waaw dañ koy def. frottis sanguin aussi dañ koy def. donc loolu c'est c'est c'est normal. Mhm. mais bii nga xam bu jëlee ñàkkam bi. Mhm. def ko foofu. Mhm. ñu jëlaale ko mais day day ADN bi day nekk foofu est que loolu loolu loolu lañ ki parce que. pièce quoi encore mais bien sûr. <laughs> mais bien sûr mën na nag ah, parce que man on ne sait jamais on ne sait jamais. ne sait jamais mais dama ne nga xam ne mooy seen seen rapport médecin bi nga xam ne. Cheikh Tidiane waa gars yi moom la ñuy au Sénégal. Hmm. sous le régime de Macky Sall. Hmm. foofu lañ gis ni autopsie. ne kii nii la dee. Ziguinchor Kaaw waaw suñu booy Idrissa bi nga xam ne man xam naa ko personnellement. Hmm. day ñëw suñu village tout le temps macha allah. su amee événement foofu day ñëw. man xam naa ko chauffeur la am na suñu paa bu nekk fii Macky Sall xam na ko bu baax Chérif Abdallah Aïdara maa ngi koy nuyu du passage Macky Sall xam na ko bu baax a baax a baax paa boobu. Hmm. ñun suñu xamee Macky saal ndax paa boobu. Macky Sall ba ah? mu nekkee opposition ba mu nekkee opposition no non euh, sëriñam la. ok sëriñam d'accord. da ko doon xam nga moom chauffeur la. ko doon dawal ak yooyu. Hmm. donc sëriñam la kook lu mu deful Macky Sall bu mu nekkee opposition amul suñu kii yëpp la ko doon la ko doon yóbbu ñun fu ñuy jàngee kaamil Macky Sall dañ ko di gis nii muy distribuer ay kaamil muy jàmmalaay muy faas fii ba 23 ba fii donc ñun xam nañ xam nañ Macky bu mu nekkee opposition xam ko man su ma nijaay Cheikh Samsidine Aydara bi nga xam ne moom la ñu rey euh, en Casamance kii xam nañ lu mu kii ak Macky Sall teg moom ak Farba Senghor ñoo dem présenté Macky Sall ak Farba Senghor donc ñun xam nañ ko. mais fayul naar bi xoromam ñoom ñëpp dañ leen bàyyi léegi. président la. waaw président la waaw baax na. mais <laughs> mu ngi jàpp ñeneen awatul mu ngi dem waaw waaw baax na. <laughs> mais quand même. le, uh-huh. procureur Ousmane Sonko. ci ci face à avec le doyen des juges. Mm-hmm. et paraît-il paraît-il. Mm-hmm. que le juge lui aurait dit pour ton bien. Mm-hmm. cela y va de ton intérêt. kon nga def test ADN. Mhm. pour ñu mën a jël sa ADN comparer ko ak lu ñu prélevé woon ci Adji Sarr. waaw xam nga yaa ngi naan paraît-il already. pour être prudent man fekkeewum mais président Ousmane ko lu ñu lu ñu wax ñun te ñu gëm ko mooy dañ ko laaj deretam te du ko joxe. deretam la la waaw programme da ko test ADN la ko yow yow nekkoo fa moom moo fa nekkoon. mu nekk ADN lu mu wax la ñuy dëgg. d'accord. que de un bu mu ñëwee dafa fekk foofu ñu saafara ko yëpp. loolu la wax te ñoom Inde lañ demoon. non lu mu wax moo am. loolu la wax de. non looloo am. looloo am mu band loxoom ba ba si <laughs> kii bi. mais loxo bi dafa métti dafa métti. Ah. bu dee dafa gaañu dafa kii. Ah, waaw waaw waaw waral ah, ay ay gaaf de. <laughs> puisque Inde lañ nekkoon après ah. macha allah kan ma demoon Inde. Inde. kii juge bi. juge bi demoon na Inde ah yow yow kay doo ko yëg. non ko yëg nañ ko. yëgu ma ko séeréer ba yëgu ma ah ñun yëg nañ ko bu dee léegi dem na fa ne léegi xanaa ind ind moom foofu la séeréer si nekk ñu bàyyi fi séeréer yi. bu xaabay yi bàyyi fi soose def nañ loolu fii moom si lañ dëkk. dem xam nga waaw. xam nga ñoom moom ñoom moom fu ñu dégg ne sëriñ bàyyi fa wala bu xaaba bàyyi fa wala xërëmkat bàyyi fa. ñu ngi dem fépp mën nañ dem Casamance xanaa ñun aay nañ de suñu. ñu fa ñu ngi fa ñu ngi fa mais dañ ko mënul dara rek <laughs> moo tax ñuy fu nekk la ñuy wër fu mu toll nii. <laughs> d' accord mais quand même defoon test ADN bi bu dee Ousmane Sonko. non amul sens musul tëkk dara ak Adji guddi googu bu dee ñoom ñaar dajewuñu hmm? mm-hmm. ni ko Adji Sarr waxee li ko mën a déterminer. waaw sur le plan médical. c' est le test ADN. waaw si ñoom seen gis parce que weddi tuuma rek weddi tuuma rek doyul ci ci sur le plan judiciaire. parce que lii ala kulli aal ni ma ko gisee nii ci procès lañ jëm te boo demee procès foog ñu koy tuumal ne li nga def nii yaa ko def lu ñu la tuumal ne yaa ko def parce que ku tuumalaa day andi preuve ñu tuumal Ousmane Sonko yaa def ñoom ñooy andi preuve ñoom nañ ne lu ñu mën andi preuve mooy lan ci lu ñu jël ci Adji Sarr ñu mhm. denc ko boobu ba tey bu dee denc nañu ko mhm. jël dara ci Ousmane mën nañ ko jëlee ci karawam mën nañ ko jëlee ci salivam wala ci ci leneen mhm. ah ñu def comparaison yi loolu mën na sax mën nañ ko def sax Ousmane Sonko mu génn ci sedd wala yan comme jàpp nga ne complot la rek. Cheikh Tidiane. Hmm? Cheikh Tidiane du caage ne dañu jàpp ne complot la. complot la. ma ne en matière de viol. Hmm. bi nga xam ne dañu ne dañu ne euh, ku góor ki yegg na ci kaw jigéen ki lu koy déterminer mooy certificat médical pièce centrale la ci. comme test ADN tamit. non non test mais fu nga xam ne dara demu fa. si te Saare. non non non yaa wax ne dara demu fa. mais Adji Sarr nee na dem na fa. non mais mais certificat médical euh, kii na ko weddi na ko. déedéet certificat médical weddi na ko weddi ko. weddi na ko déedéet bii dafa ne lésion la wax nee na amul blessure waaye waxul ne dara dugg fa. mais lé mais lésion non lésion waxul blessure de. lésion du blessure non lésion du blessure non xam nga. jigéen bu sekkee non non jigéen bu sekkee. Ah. bo gynécologue yi ñoom mun nañu la expliquer su suñ ko xoolee dañu xam ne kii sekk na. lésion parce que parce que waaw parce lu muy frotter moo tax. waaw loolu moo loolu mooy indi du lésion ni góom lay nekk. Hmm. du lésion ni góom lay nekk du nekk góom mais dangay xam ne kii am na lu mu def ñoom ñoom ñu xam am xam-xam ñoo ko ñoo ko mën a déterminer. kon ñun Sénégal def nañoo dégg tubaab parce que lésion moom mooy vulve bi am na ay dagg-dagg. non du dagg dagg lan koy dagg. lan koy dagg. Ah, loolu moom mun mun <laughs> nekk loolu dala wax médecin bi nee amul. on est d'accord le médecin a dit qu'il y a pas de lésion. xam nga xam nga xam nga euh, lu ñu lu ñu lu ñu yóbbu ba fii sax c'est que médecins ils sont ils kii par le droit de réserve euh, secret médical. moo kii waxoon na ba pare kii moom génn woon na la non wax na ak juge bi waaw. mais lu mu wax juge bi xam nga euh, génnewuñu ko. Mm-hmm, mooy lii. comme lu ñuy génnee PV yi. xanaa sañul wax lu wute ak PV bi. non mais dina ko appro approfondir xam nga lii dafa bind rek. mais ak wax. Mm-hmm. dem à la lettre di di di di di di comment dirais-je di di expliquer. bokkul ak loo bind. ak loo bind mën nga résumé bind bi yow yaa nii di wax beneen interprétation. parce que légion bi. yaa ngi interprété parce que man légion laa jàng. waaw yow ma vérifié le mot mooy dagg-dagg. waaw waaw. dagg-dagg bu sew. mais man aw ma dégg boobu. <laughs> <laughs> d'accord te tubaab lañ bind. <laughs> waaw c'est c'est vrai. bokkul nag ak eh, eh, médecin bu toog ak yow lii ak lii ak lii langage médecin mën na wuteeg langage journaliste ah. voilà comme comme aussi y a lexique juridique am na ak yooyu. waaw c'est ça les mots ne peuvent pas signifier la même yow da nga jàpp ne war nañu mën a dem procès wala waruñu dem procès. non bu fekkee bu fekkee procès moo moom moom lañ bëgg. Hmm. pour ñoom moo mooy leeral kii. Hmm. man ragaluma ko. ah mais léegi ragal ma dem procès parce que il faut ñu bëgg. xam nga wax nga fi sànq ki ak accusé. la preuve incombe euh, à l'accusateur oui. moo war a indi preuve. Mhm. xam nga fu mu toll nii indi fu benn preuve. waaw mais normalement l'affaire là ne doit pas avoir suite. warul am suite classé sans suite. oui classé sans suite non lieu. parce que Adji Sarr non loolu du preuve. ñi def prélèvement Adji Sarr ñu war a comparer ndax li ñu jëlee ci moom am na ko ko moom am déet. non ma ne la xam nga expliqué woon naa la fi nee naa la. Hmm. ki nga frotté mën nga jël sueur am jël ko. ah ci hôpital ba ci fële ci salon de massage. waaw d'accord d'accord ñàkk bi. d'accord d'accord d'accord d'accord d'accord. Adji Sarr mën na jël ñàkkam comprendre naa pour yow complot bi ba léegi ñoom yor nañu. ADN jël ñàkk bi. mais bu doon loolu yomb na soo ko na fi hôpital fan may dara de. waaw mais boobu complot bi ñëwagul loolu complot bi ñëwagul ah c'est avant le complot xam nga président Ousmane Sonko luñ <laughs> ko ndëgg sërëx liñ koy lalal bëri na. Ah. mais yàlla moo koy jàppale rek. d'accord nit ñi baax yi nga xam ne dañ koy. avertir d'accord d'accord yéen daal. dañ lu bëri. ah pour yow bu ñu demee rek Adji mais bien sûr man loolu laa loolu laa jàpp parce que parce bi waxul ne. Ah. sperme la la la prélevé xam nga. non prélèvement vaginal la wax. waaw loolu ñun ñëpp xam nañ lu mu signifié. léegi prélèvement vaginal non non non wax naa la fi PV mooy prélèvement vaginal. moom la bind ci PV. moom la moom laa la wax prélèvement vaginal. waaw xam nga jigéen yi ñu koy defal fii. Mhm. suñ la koy defal suba tey doo sëy ak sa jigéen. waaw vaginal sax dafa ne des prélèvements ont été faits en vue de test précis au ban type de prélèvement. moom laa la wax. waaw waxul ne sperme laa jël. waaw pour être plus précis. waxul ne prélèvement su ne sperme laa jël. waaw ñu wax mais waxul loolu. te prélèvement vaginal nee naa la hôpital ñu ngi koy def chaque jour. Mm-hmm. boo koy def ah, dañ lay wax dañ lay wax guddi gi bul sëy. waaw ak sa jëkkër. waaw noonu ngay demee ñu jël ko. Mm-hmm. donc waxul ni sperme la. c'est vrai waxul sax prélèvement vaginal ah. dafa ne juste des prélèvements ont été faits. amul ban genre prélèvement moom nag dañuy spéculer naan euh, mënuñu la jël. waaw prélèvement rek la wax loolu loolu c'est vrai. léegi ñàkkul na tamit yëre aji saar yeeg ils ont fait des prélèvements ci fu ne bopp bi yeeg. yooyu nañ fi filmé na ko dugg na fi am na ko gone demal ah, uti preuve. on sait jamais une ah. caméra benn. clown bu nekk si télé bi di wax ne waaw caméra yooyu nga xam ne boo ko boo ko boo ko tafee si miir lépp lay jël xaw ma dugg na fi génn fële non xaw la xaw ma jaw ak euh, keneen ki sax xam naa ko dèjà kii nu mu euh, léegi bu vidéo amee nag bu vidéo amee nag bu fekkee ne vidéo dëgg-dëgg am non vidéo amul vidéo amul mënul hmm. am xam nga euh, président Ousmane Sonko man dama ko gëm. xanaa boo amoon kay ñu génne ko. ki nga xam ne yëpp. xam nga man bu bu ma déggee affaire bi dama ne c'est xam nga lu tax. xam nga lu moom waxoon na ne c'est pas vrai ki nga xam ne non dafa président Ousmane Sonko yàlla yàlla may na ko ragal yàlla. moo tax dërëm impôt des impôt yi demee dellu fa. parce que dafa ragal yàlla moo tax. ragal yàlla boobu mu ragal yàlla salaire am rek moo ko may immeuble am bii nii si kër góor yi. mais wax na lu mu ko amee daf ko mu ngi ko doon fay. ah leb la. mu ko leb la mais loolu dama leen dem leen vérifier ko. ok dem leen si kap ngeen vérifier ko wax na leen indice yëpp nee na yàggul ba ma ko ba ma ko fayee ba mu jeex. Hmm, loolu mën na nekk. Hmm. waaw mën na nekk. wax na leen. Hmm. d' accord donc ragal yàlla mais est ce que Ousmane Sonko moo ñu yóbbee problème bi yëpp ci dëgg-dëgg est ce que bu demuloon sóot booti mu demoon hôpital principal wala mu dem Paris wala mu dem États-Unis wala mu dem Chine ndax dinañ ko tudd ci suite booti ba lii yëpp am ay quatorze personnes di ci dee. mais Ousmane président Ousmane Sonko du Richard pour mu dem kii yooyu te nit la bu nga xam ne dana moytu moom su xamoon su xamoon ne ñii xam nañ bërëb bii du fa du fa dem. parce que laqatu. def naa moo tax mu dem si suite boote. d'accord parce que pour moom c'est un bu nga xam ne. xëy na siiwul waaw siiwul bi nga xam ne mën na dem discrètement. faju dem yoonam. d'accord man pour man looloo ko fa yóbbu. mais sinon moom am na yeneen kii yi nga xam ne mën na fa dem. comme demoon na fi euh, nu mu tëddi. chinois yi euh, Imot Sen. def naa waaw Imot Sen mu gis ne dafa cher mu bàyyi. ci corniche bi. waaw <laughs> Sonko am na xaalis de. <laughs> ah waaw yéen yéen koy jiinde puisque nee nañ tuloo ooy la <laughs> yéen ak yéen ñu koy jox xaalis xaw ma la gis naa beneen kii bu bind Oxfam dañ koy jox xaalis no xam nga fii moom ku jël salaire am yëpp maye non président Ousmane Sonko kay ku jël dafa tabe rek dafa tabe mais xanaa boo feebaree balaa ngaa maye sa salaire faju sooy maye doo ñàkk ah doo ñàkk <laughs> et le bienfait n'est jamais perdu. c' est bien euh, déjà yéen jàpp ngeen ne complot la jàpp ngeen ne président Macky Sall dafa bëgg. Mhm. en tout cas faagaagal en opposant à la trempe de Ousmane Sonko qui pourrait mhm. Mhm. lui faire mal au soir du janvier. Euh, deux mille. moom du si bokk bu ko sax cité foofu. voilà hmm? kay dafa ragal dafa ragal kooku wuutu ko rek. mais ah. moom moom du bokk. en deux mille quatre moom du bokk moom président ah, loolu loolu conseil constitutionnel dina ko leeral. non sañul moom sañul dem conseil constitutionnel sax. ah bon. non ak li mu fi wax yëpp. ak li ak li bind. bu waxu président Macky Sall moom xam ne amul benn valeur juridique. non mais bind na ko. waaw bind na ko ci livre mais bind ko ci. non bind na constitution bi leeral na ko. nul ne peut exercer plus de mandat nag dix ans nag vingt ans mandat la mandat mandat la. est ce que est ce que li ngeen est ce que xam ngeen euh, euh, l'histoire de la constitution au Sénégal. Ah, xam nga du rétrograde de. saa ñu ko appliqué mandat en cours <laughs> bi lay def du rétrograde loolu moom yéen xam ngeen ko bu baax yéen politiciens da ngeen di xam dara ba pare. non da ngeen di xam dara ba pare di teg seen tànk. Abdoulaye Wade defoon na ko fi moo ko mayoon possibilité Barthélemy Dias toog na fi ci télé bi ne moom xamoon na ne Abdoulaye Wade am na droit def beneen même histoire bi moo defee ak président Macky Sall. non c'est pas la même histoire. même histoire la seule différence. non non non non Abdoulaye dafa kale woon xam nga Macky Sall n'a pas voté une nouvelle constitution. oui mais il a touché. c' est le waaw daf ko touché rek. waaw révision la rek non mais daf ko réviser rek mais. kii wul sampul beneen commission bu kii. waaw donc euh, règle yi nga xam ne Abdoulaye bàyyi na ko fi mais règle mooy. kii mooy euh, la double candidature. mais problème bi mooy. waaw révision Macky Sall bi. waaw n'a pas touché un autre article. qui ne parle pas du problème de mandat mandat bi la laal. loolu mooy par différence. non durée mandat bi la laal mais. mandat bi la nombre de mandat bi laalu ko. mais durée moom wa non xam nga xam nga l'esprit et la lettre bu bu demee ba am jiixi jaaxa. Hmm. Euh, législateur bi la ñuy laaj fi nga toog toog na dañuy laaj dañuy laaj législateur bi. xam nga man du ma constitutionnaliste. monsieur Ndiaye nee na mais mais droit def naa ko tuuti. nee la fii euh, euh, professeur Ismaïla Madior Fall man étudiant am laa woon. moom moom it wax na ci lu am solo. nee na Macky moom lu mu fi wax. dans sa tête nañ ko. nee na dans sa dégg nañ ko. Hmm. te xàmmeetuñ ko suñ professeur moom xàmmeetuñ ko moom. waaw man defe naa ñun ancien ancien étudiants yi war nañu war nañ former kuréel dem gis ko wax ak moom nag def naa jot na non c'est vrai c'est bien. Ah. non ñun ancien étudiant Ismaïla Madior Fall yi professeur non war nañ former kuréel ñi dem seeti ko wax ak moom parce que li ñu daan wax ak léegi ça fait deux. <laughs> non non vraiment il est méconnaissable. Ah am sa doo soo moom non vraiment. Euh, kook suñu professeur bu baax suñu yaay bu baax boobu moom moom elle est restée telle quelle waaw mu ngi même même cas même même si cours yi sax macha allah pankam bi moom <laughs> moom moom macha allah. moom changé wul mais professeur Ismaël Madior Fall dafa nekk professeur bi nga xam ne dafa sympa ba moom laa gis professeur bi nga xam ne day joxe cours ba pare nga interpellé si cours bi mu taxaw wax. Ismaël Madior Fall. waaw noonu la meloon université. noonu la meloon. direct Afrique fépp lay dem ay Bénin ak yu mi lay mu leen di aider ak mais xam naa ñoom yëpp léegi désavoué nañ ko quoi à cause de Macky Sall. moom moom nee na yal nañu yàlla musal si pouvoir. nee na pouvoir bu kii bi. Uh-huh. Ismaïla Madior Fall récemment nee na. waaw. président Macky Sall dafa amoon ambition. waaw. limiter les mandats à deux te loolu la def. waaw cinq ans ngay def amaat cinq ans pare na. mais non pas avant malheureusement il avait ambition il avait voulu. ci texte yi ko ba pare. pour que mandat bi nga xam ne dafa am mandat de sept ans bi. mu doon mandat bu ñuy njëkkee compter. pour que bu ci tegaatee beneen cinq ans mu pare mu dem. waaw conseil constitutionnel ñoo ko nii. sa bi bu bees bi ngay appliquer nii. elle ne peut pas être applicable à ton mandat de sept ans. ne peut pas être rétroactive rétroactive. dafay compter à partir de ton prochain mandat ñu tegaat ci beneen nga am deuxième mandat de cinq ans. looloo mhm. causé le problème actuellement. loolu kañ lañ ko ko wax Ismaïla moo ko wax récemment. kañ lañ ko ko wax kañ la ko conseil conseil constitutionnel wax. maanaam après le vote bu ñu yow duggee proposé conseil constitutionnel peut-être kii bi pour le projet de loi peut-être. soit non. avant les élections parce que man dafa nekk fële. non non loi bu nga xam ne day dem pour pour voter ko. Mhm. yoru conseil constitutionnel newu ci. ah kon bu ñu ko voté ba pare xam nga dañ koy amandé. peut-être non non duñ ko amande non non non ñoom kay bu amee litige kay lay dem si conseil constitutionnel. waaw mais euh, xawma projet de loi ak yooyu yëpp. conseil constitutionnel yoon a néew ci. non bu waxee loolu man dina ma jaaxal. moo ko wax. parce que moo ko wax. professeur constitutionnaliste yi ab Ndiaye bi toogoon fii. Mhm. loolu la expliqué. ñoom ñaar ñoom moo bokk point de vue. gis nañu aussi un autre professeur ñag la sax defe naa bi toog IGFM la xaw ma bu expliqué la même chose. léegi kay yéen politiciens yi kay ah comme ñun peuple bi dañuy yenu rek yéen lañu rek ñu yenu léegi man dégg naa Macky sar mu ne mu ne leen man góor laa. waaw wax ci góor ca wax ja. mu ne góor laa. loolu moom mooy dëgg man xam naa ne góor laa. góor ca wax ja. te lu ma wax. jollaay laay appliqué. même su fekkee ni même su fekkee ni constitution may na bii. Hmm. pour man may na ko mu mu postuler. Hmm. pour man waru koo def. parce que moo ne du ko def. Bun Jon ak ñeneen ak ñeneen Mimi Touré Ismaïla Madior Fall Mimi Touré ñoom ñëpp wax nañ ci ñoom Seydou Gueye ñoom ñëpp wax nañ ci ne dañoo amoon volonté bi mais après conseil constitutionnel da la ne mënul nekk vingt quatre lay pare amul tabax jàkk amul yeggali xaw ma lan. hôpitaux wala tali fii la fii la denge ak yooyu ñoom ñoo ko wax dañ fi bàyyi pétrole de pétrole ak gaz. waaw loolu dañuy defandu ni mais ñoom xam nañ ne même constitution sax tere na leen ko. Ah ah. non constitution tere na leen ko. nul ne peut faire troisième candidature moom constitution tere na parce que nul. comme suma professeur mu ngi di répété ko ñetti yoon nul nul nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. waaw de cinq ans. non non waxul cinq ans de. constitution waxul cinq ans. de cinq ans non non non le mandat est de cinq ans. ah mais esprit nga wax de. non le man esprit bi. waaw ah. xam laa la wax mais législateur bi. expliqué nañu moom Macky Sall. moom moo ne non non législatif Macky Sall mooy moom moom moo moom moo bind lu di. donc moom war na mun na mun na wax lan la jublu si loi bi loolu mooy compter. constitutionnaliste yi fi toog nee nañu par loi boobu noonu à partir de deux mille vingt quatre ku ci falu ci cinq ans beneen mandat de cinq ans. waaw ñoom ñoom ñoom constitutionnaliste constitutionnaliste Macky Sall la waaw kay. yàgg bëri na fi ay avocat Macky Sall. constitutionnaliste mais dégg nañu si maître Doudou Ndoye quand même qui aussi s'est contredit fii la taxaw ne wuy constitution bii. dafa juumoon. bii. dafa bu mu ko doon wax wax nañ ko. Ah, dafa dafa juumoon. dafa juumoon. mais léegi il s'est rendu compte. même ça c'est arrivé à l'autre là euh, euh, journaliste kii bu bu wax sànq euh, kii temps yi mine. Daouda de mine dafa juum bu rectifié boppam mais ah, sur sur ah. voilà. Hmm. xam nga xam nga professeurs yi ak peut-être yi. mun nga am dégg-dégg texte. Hmm. mais mun nga toog sax ak profane. Hmm. discuter ak moom si texte boobu. Hmm. mu éclairer sa d' accord mun nga noon mun na nekk. d' accord loolu am na solo waaye nag. Euh, troisième mandat moom. fexe leen ba bu mu fi andi rek deret bu tuuru moom. wax dëgg yàlla. Ah, élection jarul loolu. non moo tax. muy comme le président Macky Sall comme vous Sénégal jarul politique jarul yéen nii quand même. fexe leen daal ba jaarale ko def ko yëfu jàkkaarloo def naa loolu président Macky Sall moo war a éviter loolu. mais dem élection rek. comme ça non a dem la république. may nañ sonn nañ ci yow bëggatuñu la demal nga dem noppalu ji ñu wooteel beneen président mu toog. Abdoulaye Wade noonu la demee en na. bu ñu demee élection population yi da ngaa forcé ne woon nañ la bu ñëw nga ñëw bëggatuñ la mais dafa dem. forcé na à quel prix. oui Macky tamit bu bëggee forcé. bu ñu ko jaral mooy am. moo tax moo tax ñun ñu yore suñu liste de. dañoo bëgg ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ñu ngi wax ne Macky demal am nga droit trois euh, troisième candidature ak yooyu ñu ngi noté. <laughs> yàlla yàlla jàmb rek sax fi <laughs> mais bu amee jéeya ñoom ñëpp solon seront traduits devant la justice. incha allah loolu moom on on y veille. la ñëwee on est catégorique la ñëwee au ah nguur yàlla incha allah non ku pouvoir moom 2024 incha allah dina nekk Séné jàmm pour Sénégal. na doon jàmm rek. ci réew mi loolu la ñuy ñaan yàlla. Euh, te vraiment am nañ ci yaakaar aussi def effort quand wàññee dund gi loolu ndax nga ko jàngatee. lan la wàññi prix yi prix ceeb bi ceeb bi ak mu ak yooyu. waaw diwlin beeg saako ceeb beeg ak yooyu wàññi na ko taay de. Mhm. Euh, su wàññi amee. vraiment on peut pas être dañ koy rafetlu. Mhm. dañ koy rafetlu parce que ñun ñëpp a koy yëg bu yëgee ñun ñëpp koy yëg. xam nga salaire baadoo la ku ko yore. waaw ah, wàññeeku nga bëgg. Mm. mais lu ñuy déplorer xam nga mooy lan. Mm. Euh, président Macky Sall fu nga ko doon xaaree jaaru fa. mooy maanaam dañ ko doon xaaree mu wàññi li nga xam ne loolu la état moom mooy maanaam taxes yi impôts yi ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne loolu état moo koy sentir. impôts yi moo wàññoon na mais lii wàññi fan. ah loolu mën na permettre ñu wàññi ceeb bi lu tax du ko wàññiwaat lu tax du ko ah, wàññiwaat. ah wàññiwaat kay xanaa non na wàññi na na taxi yi de. Ukraine ah, loo yëguñu loolu. Ukraine ak Covid 19. <laughs> non ñu Ukraine ak Covid 19 <laughs> ngir yàlla ne leen ne neel waa Macky Sall yi ñu bàyyi ñu Ukraine ak kii ak Covid 19 loolu dafa fekk jafe-jafe yi fii. Mm-hmm. te dara warul ko lu dul train de vie de l'État vraiment commerçant yi fu mu toll nii la wàññi seen loxo pour vraiment mën a wàññi wàññi te loolu loolu mën na am répercussion te loolu ah comme lu ma la ko waxee rafetlu nañ ko mais séntu woon nañ leneen lu nga xam ne. Ah, surtout que ñun fii yi lu ñuy lu ñuy jaay yëpp daanaka. lu ñuy importé la teeram baa ngi nii teeram ñu rey nag du ko wàññi. teer bi transport bi cher na. cher na trop 1000 francs la ñuy fay. cher fii ba Kër Mbaye Fall 1000 francs ngay fay. man am naa ci dara fii ba ah ko xam tant que jëloo ko PNR PNR fii ba yëmbal sax 1000 francs ngay fay. c'est ah. teer teer bi moom loolu na ko wàññi bu ci góor la war a wàññi nag bu ci góor woon président de la république. loolu la war fexeel ba wàññil ñu transport bi. fii ak bi mu gën a wàcc. c'est ça. teer bi mu gën a wàcc. loolu lañ bëgg. waaw Dakar dem digg bi. na ko gën a wàccee. waaw moo ko mu indi bus yu baax. mu andi bus bus foofu amul bus. bus Dakar dem nag amul bus. ah man la gisatuma bus yi de <laughs> nee nañ am na bus yu bees yi ñëw. <laughs> waaw ah, man ah wàññi mbiri Dakar dem bi comme moo te foofu sax peut euh, wàññi na tuuti wàññi na parce que nu nga ko fekkee nii xëy na parce que c'est subventionné dégg naa. Hmm. mais na fay seen bor yi. na leen fay seen bor yi parce que état ah, waaw état bi bor bi yàgg na de. te métti na. waaw ah, mais na wàññi mën fayul bor yooyu. mën na wàññi mën ah, parce que daanaka sénégalais la ndaa bi jëlatuñu. mën na wàññiwaat parce que soo gisee car yi di ñun xam nga car jël. soo gisee ñi léegi amatul paas 50 francs lépp 100 francs amatul. cinquante franc amatul léegi fan lañ jëm mais na wàññi transport bi. Mhm. te aussi erreur bu mu def mooy location yi. Mhm. location moom foofu dafa lajj xam nga moom récon reconnaître na fii ne foofu dafa échec foofu. mooy bu muy jokkoo jokkoo Macky. waaw seetaan naa bi nga xam ne nee na moom location moom daf ci laaj. waxul daf ko laaj parce que wàññiwoon na fi dafa naqaree cher. mu gën mu gën a cher. Mhm. man de bu mu ko wàññee nii sax dama dama dafa ma kii mais ay gaanam ñoo koy ñoo koy jumloo rek. entourage ko jegee ñoo koy waaw ñoo koy juumloo naan ko wàññil wàññil mais lii day day ñoo seeraat rek parce que euh, bailleurs yi tamit fu ñu taxawoon la ñuy taxaw ba léegi de. Hmm. indi quelques bailleurs rek wa ne nga waxtaan ak ñoom nee nañ wàññi mais. majeure partie eh, parce que quatre-vingt-dix-neuf pour cent des bailleurs. ñooñu foofu ils sont pas impliqués léegi dañuy génneewaat ñun la ñuy génneewaat rek. ne dañuy defaraat. ñu après ñu waaw ñu yokkaat <laughs> yow nga ne vingt pour cent 10 pour cent xam nga nangam pour cent. Ah, man de bu ñu wàññee 30 pour cent 10 pour cent moom dinaa wàññi 3 xam nga dafa war a jël ay préalable. anticiper maanaam anticiper. Hmm. def un recensement. global des des bailleurs. voilà des bailleurs. Hmm. et les prix. dem rencontrer les vrais acteurs du logement. waaw ba xam loolu ba pare. Hmm. doog a doog a doog a jublu si kii. mënoon na ko dèjà par zone. par zone par zone mais boo ñëwee ren ne 30 pour cent mooy surface corrigée ñu doon. waaw boo ñëwee ren ne 20 pour cent. ci ci entre xaw ma lan moins de. 300000 300000 waaw. te waxoo ndax waa Almadi la wala waa Fass wala leneen. dafay metti dafay metti parce que quand ku dëkk Almadi di fay 300000. waaw. bu fekkee yelloon na 300000 yi. boo ko naree wàññi loo day metti ci borom kër gi di andi problème locataire bi. ñu ñuy dëkk ci àll ngay fay moins de 300000 fekk fi nga dëkk trente mille francs CFA lañ lay téye nga naan da ngay wàññi vingt pour cent day métti. day métti parce que dañ ne moins de trois cent mille kër wax. bien trois cent mille ba wàcc. kon am na koo xam ne mu ngi euh, Pikine dëkk ci benn appartement boo xam ne cinquante mille lay fay. Mhm. te boo mootu sax bu ñu ko defoon logement normal mën na ko fay cent mille. Eh. kooku ñëw nga nar ko wàññiloo encore vingt pour cent cinquante mille yu appartement bi da waroon par def par par zone quand même. day métti c'est comme conflit ngay ah. indiwaat rek. waaw boo nee wàññi nañ. donc locataire du def dara parce que loolu ko arrangé. c'est ko. te bu fekkee ah. borom kër gi. man moom bu ko man moom suy jot ah. may dindi sama 20 pour cent. ah mu ngi noonu gis nga. te bëri nga ay mor <laughs> pratiquement ñëpp. kan moo bëggul kan moo bëggul wàññi ñëpp bëgg wàññi. dindi ba mais est-ce baaxul. que bailleurs yi mais location dafa cher location bi ah, est que bailleurs yi bailleurs yi mënuñu tamit dimbali hmm. président de la république xam ne mbir mi suñu biir kese la ah. ñun suñu biir ñun sénégalais donc donc hmm. ñoom ñoo sekk luwe naa la luwe nga ma hmm. ñu xool nu ñuy dimbalee état pour que ki nga xam ne mu ngi fii nekk sénégalais mën a dëkk sans problème ñu dimbalante suñu biir quoi parce que kër du jeex c'est dans le temps boo ko tabaxee sax fii ak vingt ans trente ans boo ko hmm. fekkewul sa njaboot mën na continuer di fayeeku. effectivement ñu dimbalante quoi wala acteur politique yi tamit mën ngeen war a mën a véhiculer bailleurs yi war nañ dawal yërmande. mais xam nga aussi euh, bay xam nga location lan moo ko yàq mooy courtier yi. Mhm. man gis naa ne courtier yi ñoo ko yàq. trois mois lañ lay laaj léegi quatre mois sax lañ waaw mais yokk bi sax. courtier ñooy xelal ñu bëri la ñooy xelal kii ñooy xelal. Euh, bailleur yi ça c'est vrai. ñoo ñoo leen naan lii dafa tuuti pour lii lii diw leen a def lii man. kër bu ma joxee fële nii la nii leen ko joxee ak yooyu. loolu mooy dëgg yow ko ci. loolu mooy dëgg ndax moom lu mu ciy am rek. Mm, mooy dëgg. donc loolu aussi ñoo fii. te léegi dégg naa sax dañ lay laaj bulletin de salaire. kat waaw am na fi nga xam ne boo demee dañ lay naan du mën. séedee laaj séedee man dañ maa laaj bulletin de salaire man dañ ma ko laaj billaay c'est sa jabar sa doo ko doo ko man maa bañ maa lànk bailleur ndax dañ lay laaj bulletin de salaire pour xam ñaata ngay fayeeku pour ñu la non mais na fi Sénégal fi te y a pas de te loolu yëpp état mu ngi koy seetaan a xarañ et lu jafe. non c'est waxtaanee ak bailleurs yi ba pare. Mhm. waroon nga comme am nañu ay brigade de police brigade de mhm. gendarmerie. Mhm. créer ay section ci biir gendarmerie yoo xam ne spécialement. pour location bi la ñuy contrôler. c'est ça dugg ci koñ yi di vérifier kenn ku nekk fi nga dëkk ndax yelloon na li ngay fay. bu dee loo war a yokk la ñu am oda tamit ne la ah sa fi ngay dëkk nii. Mm-hmm. cent mille ngay fay waaw waaye war nga ko mën a fay ba cent cinquante mille. c'est ça bu dee nit ki fu mu dëkk. Mm-hmm. cent mille lay fayeeku te cinquante mille la war a fay. ñu nekk mm-hmm. ah fi nga dëkk ni tamit wàññil yow tamit di ainsi de suite quoi maanaam mu am contrôle. te liggéey bu yomb la liggéey bu yomb la suñu impliqué les chefs de quartier. impliqué voilà. parce que chefs de quartier maîtriser nañ seen quartier. voilà xam nañ kër location. xam nañ kër gi nga xam ne kenn lu ko luweewu fa. donc buñ ko defee si yomb c'est c'est facile ñu ñu gérer loolu c'est facile donc bu see dara on arrive à la fin de cette émission aussi bu dee mm-hmm. amuñu benn question boo xam ne préoccupé na la bëgg nga ñu waxtaanee ko nga fàttali ñu ko rek waaw xanaa di di masawu Pape Alé bi nga xam ne ñun de ah, dañ ko safoo mm. dañ ko safoo bu baax a baax a baax te gis nañ la nuñ koy def lu lu jaatu parce que journaliste def naa weesu nañ fu ñuy bayoon journaliste. waaw loolu moom. waaw loolu moo ëpp naa def. donc euh, liberté d'expression moo fi ne. président ci boppam moo taxawoon fii. li nga xam ne. man pour man dañ ko war a encadrer. moo fi taxaw ne. indi ay kenn du fi ab journaliste. te Pape ñaa tey def nañ ko mandat de dépôt. waaw mu ngi rëbës defe naa. waaw war na mën a góorlu ñu génnee ko. ah en tout parce que journaliste mën na juum. waaye en tout cas loolu lañ ya loolu lañ yaakaar de mais xam nañ ne du ko génne. non da génne. parce que non xam nga ñi wax naa la ko fi sànq yi président Ousmane Sonko mbiram jaral na leen fépp lu ne parce que gis nañ ne Pape Alé temps yëpp communication am si loolu lay dem plan bu ñu lal rek Pape Alé feeñal na ko. donc loolu arrangé wu leen. te yal na yal na yem fii mais mun nañ arrêté ku dul Pape hmm. waaw fu mu ne nii. képp ku nga xam ne yaa ngi yaa ngi yaa def tout pour feeñal dëgg yaa ngi seen viseur yal na leen yàlla muccal rek. <laughs> non mais c'est vrai. looloo fi nekk looloo fi nekk te ñun loolu lañ gëm mais loolu war na war na war na war na bàyyi attention xool bu baax ni ñoom vraiment seen liggéey euh, seen ligne euh, éditoriale changé wul. Hmm. ay télécom wal fajri ñii lañ doon liggéeyee. Hmm. bo ñoom boo leen xoolee da ngay naan contre pouvoir lañu def naa ñoom. ñoom euh, ñooñ sax lañ war a gën a déglu parce que ki nga xam ne moo lay wax ne lii baaxul lii baaxul lii baaxul def naa moom nga war a déglu pour xool ndax li nga def baax na wala baaxul. bu fekkee yow gis nga ne baaxul. bari na ay dérive yoo xam ne nga nga defar ko. d'ailleurs nguur goo xam ne amul opposition du nguur gu baax. du baax du nguur gu baax. Euh, déjà quarante cinq milliards armement yi dégg nañ ko fii tamit. waaw mais léegi nee nañu secret défense. la mais moom fa fa laa bëggoon ñëw. mais ki ko ki ko feeñal du tubaab. Hmm. du secret défense lañ wax. Mhm. lu tax tëj ñu ko comme Pape Alé. xanaa moom doom Macron Macron la. nekkul Sénégal. <laughs> ah déet kooku dégg naa fii la nekk di. seen correspondant fii la wala. ah loolu laa dégg de xaw ma nag maîtriser wu ma mais dégg naa seen correspondant fii la dégg naa fii la yeewoo te publier na sax euh, contrat bi. ah xanaa kooku kenn du ko kenn ko woo. fii la nekk de war nañ ko jàpp. <laughs> ñu ne ñu ne estampillé secret défense la lañ lañ wax. <laughs> d'accord te dëgg naa ci ay dëgg nañ ci dëgg nañ ci ay ay ay luubal ay luubalu euh, vingt cinq milliards si affaire bi. quarante cinq non vingt cinq milliards laa laa dégg surfacturation si si quarante cinq milliards yi. loolu lañ dégg ñu ne commandé nañ ay moto yi nga xam ne ki koy defar sax nee bàyyi na ko defar depuis deux ay fusil d'assaut yi nga xam ne kenn utilisé du ko. loolu lañ fi bëgg a indi. fusil d'assaut moom fusil d'assaut moom xanaa kay màggat moom waaye fusil d'assaut moom du du ah du non mais am na yow tamit. am na day gën a performance rek waaw classe ñi ko wax yooyu xam nga loolu am na jë dafa ko. n'est-ce pas. <laughs> ay def naa ay RPG laay dégg xam ay K7 xaw ma lan dugg la fii génn bi loolu laay loolu laay dégg terroriste bëgg nañ ko mais ay kalachnikov ak yooyu léegi amatul ay makudóom <laughs> kii kii makudóom xam nga loolu <laughs> amatul mu ngi mën lu mu mën mais amat loolu loolu amatul lan wax dèjà ci doomu Mbaye Ndiaye bi tamit bu ñu jàpp fële ci Mbour ak un milliard de faux billets selon les rumeurs c'est grave waaw xam nga xam nga métti na métti na sax si waajur xam nga sa noon sax loo ko yéene doomam nekk si problème yooyu euh, vraiment ñu ngi masaw papam waaw di wax ne àdduna di nii la <laughs> da nga positif adduna ah. bi nii non ñoom xam nga doom doom li mu def euh, papam ne pas directement responsable parfois parfois hmm. waaw parfois oui ça dépend ça dépend si lan nga ko yaree ak lan nga ko won hmm. donc mënoo ne lu doom ji def pap ji impliqué jusqu'au euh, cou non. Mm-hmm. ça dépend ça dépend lu mu def ak papa ji lan la ko lan lan la ko yaree ak yooyu. Mm-hmm. donc je crois mu ngi ñu ngi tudd papam si si mbir mi te papam xëy na il n'en pour rien. Mm-hmm. doom ji moo ko def euh, doom ji majeur lay vacciné. def naa il a il plus de dix xam a vingt euh, vingt trente ans la ñu wax. xaw ma kii trente ans donc kooku il est responsable bu defee tuuxi du naam ah man pour man euh, pap pap pap ji ah mun na ci bañ a impliqué wu. Hmm. mais soo gisee aussi ñu koy tudd xam nañ ne ah nguuru Macky Sall la suñu nee xëy na Cheikh Tidiane jaay kese waxuñu ne diw mooy papaam papaam mun na def ay manœuvre ba ñu libeere ko. Hmm. ki kenn du xam na nuñ ko libéré. donc xam naa moo tax aussi gars yi di wax ki di diw mooy papam diw mooy papam pour pour ñu bañ a am kii parce que gis nañ fi gis nañ fi Bougazelli ak yeneen ak yeneen yi xam ne. mu ngi bëgg prisonnier benn ba pare. tëj nañ ko génne nañ ko may nañ ko liberté provisoire. provisoire ah, lañ ko may. ñu doon ñu may ko provisoire après de six mois def na ko prison. est-ce nga jubal xaalis. xaalis CEDEAO Sénégal. ah plus grave. <laughs> xaalis jàmbur mais dëkk yooyu suñ ko. Cheikh Tidiane bàyyi ma waa yow tamit yow actes yi grave noonu actes yi grave mu ngi évacué mu ngi évacué à ses occupations librement. mu ngi li ah ah? non li nga xam ne ay lubal kese lañ ci lañ fi dëkk. <laughs> d'accord c'est grave en tout cas ay ay détournement ay ay ay blanchissement. waaw euh, l'État waru ci waru ci quand même. waru ci gëmm waru ci gëmm waaw war na war na ci mën a teg ah, mais affaire bati plus fu mu toll. Cheikh Yérim ay révélation yi grave yi mu fi def ay milliards et milliards. Bati Bruce moom yoonu état nekku ci yoon moom entre famille la woon ak quelqu'un. non si mais lu ñu doon def mais lu ñu doon def trafic la parce que kër euh, xaalis bi fu ñu ko war a jaarale état bi Sénégal dafa war daf ci war a am. mais loolu la loolu lañ système def pour bañ a kii def naa chinois tamit loolu la def. te loolu dafa war a jeex fii. chinois loolu def mais loolu mooy loolu mooy loolu de. doy na parce yooyu yëpp dañuy dafa am war a am taxes yi nga xam ne dañ ko war a fay pour mu dugg kafa gi Sénégal parce fii lañ koy amee. donc euh, loolu yëpp dañ ci dañ ci war a kii tey loolu loolu loolu nit ñi fàttewuñu ko de. d'accord léegi kañ ngay dellu pour militaire yu Casamance xanaa am nga fa am nga fa base tamit quand non Casamance euh, vraiment ñoom euh, am nañ fa. ay am nañ fa ay militants yi responsables yi takkoo takku yi nga xam ne vraiment. ñu ngi def seen liggéey. Euh, ñu ngi def seen liggéey lu mu waree. ñun waaw man dama gis ni. vraiment Dakar lañ war a conquérir moom a gën a war a tax ma. impliqué wu fii. d'accord parce que Dakar n'était pas acquis pour Pastef. d'accord nga nuyul ma sa copain Bassirou Diomaye Faye nee ko ñun Sénégal bañu leen. Euh, ku fi ñëw ñu tàllal la sa micro ànduñu ak opposition ànduñu ak pouvoir. individuellement nag kenn ku nekk am nga foo far. te mënul ñàkk parce que doomu aadama tamit journaliste ay nit a baax a baax. ku tudd nga ku baax. <laughs> Bassirou Diomaye Faye xam nga ne bañu leen te. tudd nga ko ah? bañu du bañ Sénégal yow tamit ah, bañ Sénégal euh, ba mi. après mu woon ñu ko de mu prouver ñu ko ñun ñëpp lañ fi nekkal vraiment. baax ku baax la man dama ko naw. <laughs> te yàlla daf ñu boole quoi. xam na waaw suma mën naa la suma xarit que parce que si cadre si cadre euh, Pastef yi ah. moom laa njëkk a gis que sax. Bassirou Diomaye. waaw man nee naa gars yi sax man moo njëkk a taal suma xel parce que président Ousmane Sonko bu muy doog fël la man. il te disait pas. kii joxuma ko joxuma ko woon gëdd xam nga lu tax. Hmm. parce que am na ay doom Casamance yu bëri yi nga xam ne fii nekkoon nañ fi nekk ay politiciens mais gëmuñu woon seen bopp man cadre boob laa ko logé franchement cadre boobu laa ko woon dama ne kii moom bon kiiw Casamance laa ñëw na fii pour def comme ñeneen ñu mu defoon pour ne pas citer le nom donc euh, mais ba Bassirou Diomaye Faye laa seetaan 2STV si cadre Pastef yi ne kon ñitti ñi mel nii ñu ngi topp président Ousmane Sonko ma commencé ko bàyyi xel franchement yàlla def euh, ma dem benn cérémonie bu nga xam ne euh, invité nañ fa président Ousmane Sonko moo ko fa représenté foofu lañu xamante ñu joxante numéro après boobu tamit tase nañ iid université jullandoo macha allah depuis boobu. ah waaw <laughs> non jumaa université la. foofu ñun ñëpp bu ñu nekkee université foofu lañ daan jullee. waaw donc moo tax ñu kon ne di fa jullee. du dara waaw. <laughs> d'accord mais Ibaadu Rahmaan ay nit lañ. ko nit lañ koy ay nit yu baax ñi nga xam ne ñu ngi doxal islam. comme ni ah, parce que yéen moom. <laughs> ay nit ñu eh, baax da président Ousmane Sonko comme salafiste xaw comme. ñeent ah. ñeent ñoom. non su ma nee ñeen moom waa yi waa mag yi laay wax quoi ak yenn journaliste yi. te journaliste yi vraiment ah, seen seen liggéey bi rafet na. Ah. mais seen corporation bi defe naa ah. man de ma xel da ciy tey yenn saay ah. parce que dama gis non dama gis ay organes de presse yi nga xam ne vraiment lu ñuy doxalee daal. Euh, man neexuma quoi xàmmeetu ma. yéen ku àndul ak yéen rek doxalul bu baax loolu moom pour man presse bu fekkee dafa am ku mu war àndal opposition la war pour man. Hmm. presse dafa war a nekk équidistant. warul ànd ak kenn. warul kenn warul bu fekkee war a ànd ak benn parti pour man. opposition la war a àndal pour la xam nga lu tax. kenn. parce que opposition mooy. population la war a faral moom. moo loolu mooy dëkk hmm. comprendre nga. Hmm. man moo tax ma ne la opposition su war a ànd ak nit opposition la war a àndal mais su ma gisee ay journaliste ay journalistes yi renommé mm-hmm. ñi naan non politiciens yi bu leen wooyee si mbedd bi bu leen génn ku mu nekk parti au pouvoir ku mu nekk opposition xam loolu moom loolu moom <laughs> loolu moom ñëpp xam nañ lu ñu bëgg a wax. parce que parti au pouvoir du du du du woote pour ñu wàcc tal bi opposition kese moo koy wax. mais yooyu boo koy wax da mais waxoo waxoo ay ay dof ay nit ngay waxal mooy maanaam yow da nga ne nañu ànd ak parti au pouvoir. opposition bu wootee bu leen wàcc. tee leen seen doom yi dugg na fii génn na fa leen non c'est <laughs> bari nañu far far bu garaaw te loolu position boobu bu ñuy ñëwee lañ gis ni koy def. am na journaliste yoo xam tamit gis ngeen ñoom it opposition bi rek la ñuy waxal jàmm bu président bi waxee dafay lu baax seen yoon nekku ci bu nguur gi réaliser benn acte bu positif seen yoon nekku ci si dañ koy wax damay bañ a cité tuur rek waaye am na moom bàyyi nañu journalisme yàggal non dañ koy dañ koy lu muy def lu rafet dañ koy wax de. Hmm. waaw bien sûr. da nga a wax loolu tuur rek waaye suñu fi waxoon dégg nga ne wax nga <laughs> <laughs> soo waxee kay dam wax lii wax lii ak lii. <laughs> merci beaucoup mbokku internet yi ñoo ngi leen di. jaajëfal monsieur ñu baal la rek nga nuyoo nga nga tàggatoo ak suñu mbokk internet yi. ah ma bokk internet yi Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax di wax na ah yaakaar naa suñu émission bi am ngeen lu ngeen si for vraiment li nga xam ne xëy na neex na leen. Hmm. li nga xam ne aussi wax nañ ko te xëy na neexu leen ngeen baal ñu ko xam ne ay nit kese lañ vraiment on n'est on n'est parfait. Hmm. donc li nga xam ne aussi baax na ci rafet na ci ngeen xam ne mbiru yàlla la donc ñi leen di jaajafal bu baax a baax di di leen remercier di remercier sa caméraman ni eh, di wax ne ba beneen incha allah. merci beaucoup ñuy jaajëfal Baydi Ndaw. Baydi Ndaw technicien bi nga xam ne moo ñu doon gunge ci émission bi. Mm-hmm. ñu jaajëfal mbokki internet yi ak fépp fu ñu mën a nekk ci Sénégal ak bitim réew di leen dëg daje. Mm-hmm. bi beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com jërë ngeen jëf.